boo gisee ci baccalauréat bi ak ci BFEM bi am nañ résultat yu ñu mën a qualifier de mucc ayib ndaxte euh, ci baccalauréat am nañ lu toll ci euh, juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yu teg donc euh, loolu mooy suñu résultat au baccalauréat xale yi def doon def BFEM nag ñoom ñoo gën a baax les résultats ndax ñoom. seen natt bi mu ngi toll ci quatre-vingt-six virgule huit pour cent ñoom daal ñu ngi ci profité di ci leen félicité ñoom xale yi di félicité équipe pédagogique bi yépp di félicité aussi parent yi ci résultat yi ñu am jàngat bi ñu ci am nag mooy résultat yu baax la dañ ko am ndaxte dañoo àndandoo di liggéeyandoo ñun ñëpp waaye suñu mëbët mooy am lu ëpp lii am résultat yu weesu yi ñu am te yaakaar naa ne dinañ ci liggéey pour loolu am waaw mébét yi ñuy am rek mooy toujours suñuy performance mooy résultat yi yi nga xam ne xale yi def examen ak xale yi nga xam ne defuñu ko classe intermédiaire yi mu baax taux de promotion yi baax xale yu bëri passé ñu am pratiquement du ñu am ay redoublant wala ay exclu résultat yi itam nekk résultat yu mucc ayib loolu mooy suñu mébét jo gën a yéegal pourcentage bi ñu amoon daaw euh, loolu mooy perspective yi itam gën a doxal club yi nekk ci école bi vie scolaire bi gën a baax environnement scolaire bi gën a baax euh, mu nekk espace pacifié ba nga xam ne lépp lu ñu li ñuy suñu tutelle sant ci euh, liggéey bi ñu amal ko. waa priorité yi mooy comme ni ma ko waxee rek mooy gën a yokk suñu performance loolu nag il faut que suñu équipe pédagogique gën a taxaw. Euh, renforcer formation wu jàngalekat yi personnel de direction bi itam renforcer itam personnel d'encadrement bi ba nga xam ne ñoom li ñuy xaar ci ñoom dinañ ko mën dinañ ko matale beneen priorité bi mooy mooy def de sorte que suñu environnement scolaire gën a baax ñu am salle de classe yu gën a neex a jànge yi nga xam ne ñu am espace bu gën a set ñu am ay toilettes yu gën a yu ëpp yi ñu am gën a baax Euh, pour xale yi mën a ñëw jàng si si jàmm nekk si nekkin nekkin bu neex ñi fiy jàng ak ñi fiy liggéey yëpp seen nekkin ci biir école bi neex. waa li ñu ciy xaar mooy parce que li ma fi wax léegi yëpp boobu pour mu am il faut ñu am jàppale jàppale bi ñu ngi koy xaar ci suñu tutelle ñu ngi koy xaar itam ci partenaires yi partenaires yi ñi ci jiitu mooy parent yi. parents yi ñooy suñuy premier partenaire ñoom dañoo war a jàpp ci école bi communauté bi ñuy war aussi dañu war a jàpp ci école bi ci ñoom la ñu compter ak bien entendu enseignants yi nga xam ne bàyyiwuñ ñu benn yoon bu école bi tolloo peut-être fii enseignants yi def nañ ci jéego bu yu baree baree bare enseignants tout génération confondue association yépp ñu ngi jàpp ci lycée Kennedy pour mu dox pour ñu atteindre loolu ñuy wax lu ñu wax ni priorité yooyu pour ñu am bu favorable pour jàng pour ñu am club yuy dox pour ñu am ay performance pour ñuy mën a def ay remédiation pour loolu yëpp mën a am il faut que partenaires yi jàpp si il faut que surtout collectivité territoriale bi nga xam ne moom la ñuy dépendre muy ville de Dakar gën ñu gunge ñu ngi ñuy gunge naam mais ñu gun ñu gunge pour lépp lu ñu lu ñuy xaar ci jàppale collectivité territoriale ñu am ko loolu daal lay mooy li may wax ci affaire axe partenariat bi nga xam ne dañ ko war a gën a renforcer ñun dafa bokk ci suñuy chantier ren gën a renforcer partenariat bi pour école bi gëna jëm sa kanam. waaw message bi mooy en fait ñu bu ñu ubbee école yi xale yi nañu jàng si bu ñu toog di xaar naan comme njàng mi commencé ñun. am nañu tradition bi nga xam ne jour ba ñuy ubbi jour boobu la ñuy commencé jàng en tout cas loolu daal mooy message bi gën a important bi ñuy lancer parent yi beneen bi itam mooy ñu fexe ci kayitu juddu xale yi ñu góor góorgóorlu ci ba xale yi jot ci ndaxte loolu day nekk ay gàllankoor ci suñu liggéey bu ñu amul euh, amee kayitu juddu yi xale yi ñëw jàng si defe naa ne bu boobaa dinañ mën a démarrer bu baax pour euh, mën a terminer année scolaire bi ci jàmm ak salaam loolu daal mooy message bi may lancer parents yi. gën a ñaax xale yi rek ci discipline bi surtout éviter conflit yi école espace bu pacifié la ñu wax que xale yi gën a jàpp seen jàng gën a respecter seen ay jàngalekat loolu mooy lii. acte bi ñuy njëkk a posé pour mën a réussir seen jàng donc loolu de manière générale loolu laa bëggoon wax di ci profiter nag di souhaiter une bonne rentrée à toute notre communauté à la communauté de Kennedy à ak communauté éducative bu Sénégal yépp amul xaj ak seen ñëpp maa ngi leen di souhaiter une très bonne rentrée